wa ala aalihi wa asxaabihi wa sallama tasliman kasiira ayyuhal mushaahiduuna fi telfaas Seneinfo nuxayyikum jamiican bi taxiyatil islaamiyya qaa'ilan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mbokk yu tedd yi nga xam ne yéen a ngay seetaan ci télé telfaas suñ tale fu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare bu baax a baax ñu ngi taxawoon nag ci suñu tafsirul Qur'an ci aaya vingt-huit mu nekk samaane ah, wa ashrona aaya foofu leen taxawoon ci suratu baqara te ñu war a commencé ci huwa moom yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne xalaqa moo bind lëkkum ñeexale yéen doomu aadama yópp maa fil ardi lépp loo xam ne mu ci suuf jamihan lépp laa wax yàlla moo leen ko bindal pour ngeen jëriñoo ko lépp nekk ci kaw suuf rek yéen a ko moom ndax yàlla amul ci soxla yéen la ko bindal ah, kon nag yaat laante leen ci suuf si suuf si ci ngeen di dëkk ci la seen teraanga da nekk ñuy bay ci la ñuy bay da ci am teraanga ñeneen suuf su la ñuy jaar dem da liggéey seen palaas yi ku nekk fi ngay jaar bu ngeen dee it nag suuf soosu ci lañ leen delloo suuf soosu ci la yàlla bind suñ maam aadama bind ko ci soixante xaaj soixante suuf bi maanaa moom la ko bindee moo tax doomu aadama am na soixante jikko juróom benn fukki jikko doomu aadama mu ngi xam euh, su ko defee nag moo tax doom aadama naq de xam bul wala benn jikko rek bul ko yàkkamtee na nga tey ci moom bu baax a baax ëllëgit jikko bu mu la mënta wanit na nga xam ne rek doomu aadama moo mel noonu moo taxit ku kafaara ci weeru koor juróom-benn fukki fan ngay xoor muy ñaari weer wala juróom-benn fukk mudd wala koo xam dafa def siyaar ak soxnaam ba tey juróom-benn fukk fan lañ ko xoorloo wala ko juróom-benn fukki mudd kon daal juróom-benn fukk yooyu ci lañ bind suñ maam aadama juróom-benn fukki xaaj ci xaaji suuf ba pare ci juróom-benn fukk yooyu itam jikko yooyu moom la doomu aadama làmbo jamiyaan sama sutawaa topp yàlla yemoo gannaaw bu suuf mooy sama sutawaa topp mu jublu ila samaay jëm ci asamaan fa sawwahunna yàlla mu jël asamaan si dégg nga sabu asamawaatin mu nekk juróom-ñaari asamaan moom it Ah, waxoo moom yàlla alimun ku xam la bi kulli shay'in ci bépp mbir lenn ci borom xam-xam yi li gën a wér ñu ne yàlla asamaan la njëkk a bind soog bind suuf ndax bu njëkkoon bind suuf ba pare bind asamaan dañ naan dafa dimbandi ko suuf taxati ko suuf bind asamaan waaye yàlla kàttanam ëpp na loolu ndax asamaan suuf dañu taxoon ñaari xëy xaybu shahaada ak dégg nga maanaam ashahaada ak xaybu dañuy taqoo nekk benn yàlla teqale ko si ngelaw lu mu diggante waaw fàttalikul wa isqaala bay wax rabbuka sa borom lil malaayikati ñeel malaayika yi na leen inni man jaaxalun aji daf laa man yàlla xalifatan ku may wuutu fil ardi ci àddina ba suuf si danaa fi def benn xalifa wala ay xulafaa yoo xam ne ñoo may xuutu da wéyale suma xàtte waaye ndax man du mën a cëpp ra moom yaa dana cëpp wàcc da xàtte doomu aadama yi waaye il faut mu andi fi koo xam ne mooy taxaw taxawaay yàlla da xàtte kon alxudaat attekat yëpp dégg nga dañu nekk xalifatullaahi fi ardi yi ku ci àtte dëgg soye nga ku ci ate lu bokk da dëgg nag dégg nga yonent bi nee safara mooy nekk sa dëkkuwaay inni jaaxalun fil ardi xalifatan koo xaadaf maa wut xaaloo malaaka yi wax bi na ko atajaxalu dangay def fiha ci àddina bi man yufsidu koo xam ne dafa yàq ku yàq àddina bi koo xam ne bu ñëw si àddina bi dina yàq àddina bi lu bari dana ko yàq ci kaw suuf yàq environnement bi yàq li nga xam ne mooy jikko yi yàq yàq yàq et moo tax ma ne woytu muy yàq ci àddina bi fii haa ci àddina bi ci xeet mooy yàlla waaye su ku muy tuur addima adret ñu reyant <coughs> wa nax na tamit moom ñun malaaka yi ne sabixu ñu ngay saabal bi xam dikk ànd ak dala sant ñu lay saabal daa wax subhanallah wa bihamdihi ñu ngi ko wax subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim borom xam-xam ne ku ko taqoo bat bu set nga def ci téeméer téeméer suba bat bu set nga def ci téeméer doo ñàkk mukk kenn du la yërëm wa nusibu bihamdika aha wa nusabbixu te ñu ngay sellal bi xamdika xantang ànd ak dala sant wa nuqaddisu ñu ngay sellal làkk ñeel la ñu lay sellal yo borom bi dala jox li nga yelloo bañ jox li nga xam ne yelloo ko te mbindeef yooyu nga wax la nga wax nag soo leen fi indee ñoom dañ la bokkaale leneen lu bokk dak yow qaala yàlla ne leen inni man alamu xam naa maa laa taxlamoona loo xam ne xamu leen ko yéen malaayika yi li ngeen wax dee dëgg la mën nañu mooy yàlla mën nañu reyant waaye nekk nañ nit maanaam jëmb yoo xam ne kenn ku ci ne boo meloo melokaan bu yiw xëy nekk malaayika wala nga raw malaayika waaw kon ñoom rek ñoo mën a suma atte fii ci ko suuf foofu nag waxal la ma daa de xamal moom borom bi aadama ci ñi maam al asmaa tur yépp mu xamal leen ko bii nangam la bii nangam la bi nangam tur waaye nag waxu lu moo jëriñ waxul aadama lu moo jëriñ bii ci misaal bii portable la waa wax ko njëriñ li bii euh, dégg oto la waxul ko njëriñ li bii avion la waxul ko njëriñ bi lu nekk mu wax ko lu mu tudd rek waaye bi mu ñëwee moom la ko yàlla xamal bu si nekk nag la mooy jëriñ làkk saatul xoloomi min aalimil xaybi wa min haali aadamal asmaau te ba séeri waxallama xame na moom yaa yàlla aadama si ñi maam al asmaa turi kullaha lépp summa aradahum topp aadama gaaral ko malaayka yi fa qaala moo leen am dem xalal malaayka ci malaayka ya fa qaala mu wax leen ne am bi óoni xamal leen ma bi asma ay haula ci turu gaay yi aadama xam na ko te ñoom xamuñ ko in kuntum dam nekk ngeen soo dixtira da wax dëgg na yéen yéen ay sellal yéen may jàmm yéen fi xeeyoo nekk kon xamal leen ma léegi tur yi yàlla moo ko xam moo ko gaaral malaayika yi ne leen nag tur yi nga xam ne xamal naa ko Adama yéen tur yi lan la tudd in kuntum saadiqina xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñeena la yow borom bi laa alma déet xam-xam lanaa ñi annu illaa ma ndara la nga xam ne xàllamte naa xamal nga ñu ko yow yàlla liñ ñu xamal rek lañ waaye li mu xamu ci dara innaka yow yàlla anta yow laa wax alxaqi alalim yaay ku yaay ku xamaa kon yaa xam lépp alxakim yaay ku teg mbir fam yelloo lépp lu la yàlla def su loo wanoon lu tax ma def ko danga doo wax ne yàkkamte naa yàlla de yàlla teg ma lii bi waxee loolu nag yàlla nag xamal malaaka ne kon nag fu ne nii aadama mooy seen sëriñ ndax xam na loo xam ne xamu leen ko te moo leen da jàngalin nag xaala mu ne ko yaa aadamu moom yàlla may wax aadama yow aadamu am bi hum xamalal malaayika yi bi asmaa'ihim ci turu yi ma xamal la falamma am ba ahum ba nga xamee ne aadama xamal na ko malaayika yi bi asmaa'ihim ci turu yi xaala yàlla wax malaayika yi da leen yedd alam aqul xanaa waxuma lakum ñexel leen inni man yàlla aalamu xam na xayba samaawaat lu làqu ci asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suuf wa alamu xam naa maa tubdoona lépp loo xam ne koy nëbbu maa taktumuun wala maa lépp loo xam ne yéen koy feeñal lay wax wa maa àlla nga xam ne kuntum nekk ngeen taktumuun dafa nëbbu lu ngeen de feeñal ci ay wax ci ay jëf man yàlla xam naa ko lu ngeen ne nëbbu ba tey man yàlla xam naa ko ndax maa leen bind xamul leen lu ma hump ci yéen malaayika yi ba ca doomu aadama xamul lenn lu ci ump yàlla ba dee ba làqatu ba yaakaar ne kenn gisul la am na ku la tiim dala gis muy yàlla fayal sa làmp sàngul dafa lu nekk loo mënta def rek yàlla moom mu ngi jàkkaarloog yow moom amul lenn lu nekk xeebu ci moom xanaa kay ci doomu aadama yi la am lu nekk xaybu li nekk ne shahaada wa fàttaleeku leen isqul naa bañ waxee lil malaayikati ñeel malaayika yi usjudoo si joote leen si jootu màggal li aadama ca suñ maam aadama ndax léegi moo leen jàngal kon nag su leen pour léegi màggal ko waaye du caa gën euh, si jootu jë ci suuf tànk ràpp ci suuf ay loxo yooyu déer du si jot boobu kooku yàlla na moo ko waaye su jot loxo ba wala si lunk mel ni ko simin mbaxana ngir màggal ko ndax borom xam-xam la fa sa jodoo malaayika yëpp su joon ilaa waaye nag iblis sa iblis moom abaa dafa lànk ndax moom bokk ci malaayika dafa àndoon na malaayika yi yàgg yàgg ànd rek moo ko moo moo tax njëkk ko jaawalee malaayika yi waaye bokk malaayika yi moom iblis ñu ngi ko bindee ci safara aadama nu ko bindee ci suuf mu ne man nag kon duma sujjóotal aadama ndax man ni ma bindee ci leer aadama ñu ngi ko bindee ci suuf suuf te xamu ne safara loo ko dénk mu yàq ko mu lekk ko ah safara loo ko dénk mu lekk ko waaye suuf loo ko dénk mu yokk ko waaw ilaa iblisa abba dafa lànk wastakbara mu daal di réy réylu wa kaanam mujj nekk minal kaafiri na bokk ci yéeféer kon mbokk jullit ñi nga xam na ñu da ngay seetaan seen télévision seenam foofu fii la ñuy taxaw tey suñu waxtaan incha allah ba beneen jamono di sant yàlla leen sant di sant borom kër gi muy Mouhamadou Mountakha al imam Mouhamad Mountakha Sakho di ko ñaanal ak yokkute di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko sàmm njabootam sàmm ci njaboot.